tey nag li ñu fi teew mooy inauguration radio communautaire de Koutiaba Koutiaba FM buñ ne Koutiaba FM lu musul am am na mooy Koutiaba teg neen ko ci yoonu développement teg neen ko ci yoonu émergence li ma leen di dénk rek mooy rajo waxukaay la kuy wax na nga wax luy defar boo nara wax luy yàq bu ko wax boo nar a wax luy tas bu ko wax boo nar a wax luy xajamal bu ko wax mais bu dee dangay wax luy defar wax ko bu dee da wax luy seddal wax ko bu dee dangay wax luy rafetal wax ko lii laa leen sant leneen li ci des mooy ñu xam ne guddi yi ñu toll ku ci nekk la nga bëgg a doon yaa koy liggéeyal sa bopp ku ci nekk fa nga bëgg yóbbu sa dëkk yaa koy def ñun xamuñu kenn askanu Kouthiaba la ñu xam askanu Kouthiaba moo ñu jur moo ñu meññ lu ñu am ku Kouthiaba moo tax ñu am ko lu ñu am ku Kouthiaba lañ koy indi lii commencement la bu ñu paree rajo bi ñu ngi xool nan la ñuy def ba Kouthiaba am télé nan la ñuy def ba yoon bi mu nekk goudron nan la mën def ba courant doy nan lañ mën def ba liggéey bi jeunes am mu yokku nan lañ mën def ba financement yi yokku ci wàllu financement li dugg ren ci Koutiaba bi ma koy calculer démb toll na ci 300 millions yu dugg ci biir commune Koutiaba 300 millions jël plus de 700 personnes Yo xamante le ku ci nekk am nga 200 le financement d'air, nano crédit ci weeru koor wi li fi 90 millions au mois de juillet bi ñuy dem élection daaw 33 millions dugg na fi

mu ne dafa war a jox département bi directeur général man gënu ma fi gënu ma fay rafet mu fi xam-xam mais yàlla tudd ne man lay teg loxo ma nekk directeur général département bi ñu nekk ko bañ ko nekkee lañ fa am ñu bokk ko département bi dama ne nag li nekk suñu kanam wax ji wax ji xam nga lan la wax ji wax ji lan la ma wax ko wala bu ma ko wax ma wax ko wala bu ma ko wax ma wax ko wala bu ma ko wax dama ne wax ji xam ngeen lan 25 février. ci ngoon. ñu am 100 pour cent fii à Koutiaba. 100 pour cent boobu nag fi ñu koy weer. mooy ki ñu président Macky Sall joxoñal. parce que ba mu waree nekk candidat. ñun dañ ko wax ne ko nekkal candidat. ñun ñëpp mu xool. xalaat dem ba mu yàgg mu ne nekkatul candidat. waaye déglu leen ma danaa xool seen biir ku ma ci doy. danaa xool seen biir ku ma yaakaar. dana xool seen biir ku comprendre sama vision ma tànn ko bu ma ko tànnee ngeen topp ko di ngeen am ndam. waaw ma ne loolu bi mu amee man mii di wax ak yéen chef de parti politique la mënoon naa ne candidat la ma ne bu ñu neexoon am nañ expérience politique bu tax ñu mën a ne candidat la ñu mais du ma ko def mu am ku mu joxoñ kooku mu joxoñ man kooku lay topp

yàlla moo ko xam mais am neen droit wax bëgg-bëgg président gunge neen la jàppale neen la kan ñu joxoñ di leen ko topp di leen ko jàppale waaye bu loolu passé dañuy jël suñu destin en main jël suñu destin en main mooy préparer ko parce que nit boo taxawalee parti politique da nga bëgg a nekk président de la république je veux être président de la république du Sénégal ah mais loolu pour mu am il faut ma liggéey ko ak sama askan il faut mën liggéey ak samay mbok il fo mën liggéey ko ak samay xarit ci am jom ci am fulla ci am coloré ci bëgg lu baax ci bëgg yéene nit ñi jàmm ci loolu la ñuy dox